Okay, alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي وردل تي لدي آية 191 190 في سورة آل عمران في سنبرم دي وخيني إن في خلق السماوات والأرض ñu ngi koy sant jalla wa ala ci wërsëgal gim ñu defal ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem te yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam daan ñuy bégal ci yiw wu màgg wu nekk ci loolu ñu ngi ñaan suñu boroom jalla wa ala lépp lum ci digle yal nañu ko jagleel adduna ak àllaaxira mboolem ña nga xam ne ni it fu ñu mën a nekk ci kaw suuf te di ko topp ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala boole leen ca loolu te fayal ñu ñi nga xam ne ñoo def ay moyens sàkkuwuñ ci lu dul ngërëmal yàlla ba ubbi ay site ubbi ay rajo ak télévision ngiree jottali leen la nga xam ne mooy kàddug borom boobee yal na yàlla subhanahu wa taala fay leen ñoom tamit su ko defee tey mooy fukkeelu fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab sun maam yi daan ko wax ndey koor ci atum 1444 muy tombeek juróom-ñett fan ci weeru février ci 2023 incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن في خلق السماوات والأرض nekk na ci binduk asamaan yi ak suuf wa ixtilaafi leyli wa nahaar ak wóoteeg guddi ak bëccëg la aayaatin li ulil albaab nekk na ci ay kawtiif ñeel borom xel yu mat ya allazina yazkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uuda ñooñu nga xam ne dañuy tudd yàlla di fàttaliku yàlla ci taxawaay ak ci toogaay wa ala junubihim ak ci seen wet yee bu ñu tëddee wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal wal ard ñuy nekk di xalaat ci bind gi nga xam ne bind nañ ko asamaan yi ak suuf boole ci di wax naan rabbana ma xalaqta hada batila ay yàlla suñu boroom lii day bindoo ko ci neen subhaanak sell ñel na la faqina azab annar yan nag ñu musal ci mbugalum sawara rabbana innaka man tudxili nnar ey yàlla yow day képp koo dugal sawara faqad axzayta ku mel noone day toroxal nga ko wa ma li zalimina min ansar te du ñeel mu ko tooñkat ya kenn ku leen di dimbali rabbana innana sami'na munaadiya ey yàlla suñu boroom ñun dey dégg nañu aji woote yunaadi lil iman muy woote jëme ci ngëm an aminu bi rabbikum ca mooy gëm leen seen boroom fa amanna ñu daadi gëm rabbana i suñu boroom faghfir lana zunubana yal nañu baal suñu bakkaar وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وكفر عنا سيئاتنا yal nag ñu faral suñuy ñaawteef muy bakkaar yu ndaw yi buñ ko booleeg zunub wa tawaffana ma al abrar te nga faat ñu ñu ànd ak gaa ñu baax ña rabbana i suñu boroom wa atina ma wa'adtana ala rusulik yal nag ñu jox la nga xam ne dig nga ñu ko ci sa yonent yi wala tuxzina yawma alqiyama te gàllawaay bu ñu toroxal mukk bi si penc ba innaka la tuxliful miaat yow day doo nekk di wuute ak la nga xam ne mooy say dég mi ngi noonu ñu ngi ñaan mbokk yi mun te def seen portable silencieux ñu fay ko ba baa ñuy jóge ci darse bi mbokk suñu boroom aaya yi ba mu ko wàccee ci suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yaayu Aïcha nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jóg taxaw di naafila di ñaan yàlla di jàng di jooy di rokkoo di jooy di sujud di jooy ba waa fajar di jot suñu yaay Aïcha na ko waaw li nga def moom lu la ci xiir mu ne ko yàlla day wàcce na ci man ay aayaat yoo xam ni alkaa nga ñeel na koo xam ne nii du ci bàyyi xel ca loolu it mbokk mi ngi noonu téere borom bi alkaa nga ñeel ne képp ku ko woon gannaaw képp ku ko déggul képp ku ko jëfewul waaye rawatina lenn ca aayaat yooyee ay yi ñu nar a jàng suñu yonent sallallahu alayhi wasallam heure bu masaan yeewu ci lal balaa dem taxaw dina fi la daanu ko jàng loolu it jullit bi war caa bàyyi xel bu baax suñu boroom da koy ubbee ci ne nekk na ci bind gi ñu bind asamaan yi ak suuf mbokk asamaan mooy lépp lu la féete kaw suñu boroom yàlla lam ca def ci ay kawtéef am na ñu ñuy tuddee tey ay scientifique ñoo xam ne dañoo giiju ci xam-xam waaye ñoom ñëpp bokk nañu nangu ne la nga xam ne mooy l'univers bi ñu tiim ñoom ñëpp jommal na leen lépp lu ñuy jéem a utal solution suñ demee ba gis ko gisaat lu leen gën a jommal tey yàlla may ñu doomu aadama muy gis loo xam ne yéen xale yi ngir ngeen mën a comprendre scientifique yi bu ñuy wax dootuñu wax milliard milliard ci suñu xaalis yi la yem mais dañuy wax kilo parsec kilo parsec mooy un boo teg dix-sept zéro loolu la ñuy wax ci bu ñuy wax ci univers waaye xoolal rek biddiw yi yàlla def ci asamaanu benneel nga xam ne c'est des milliards de milliards de biddiw scientifique yi bi ñu nattee biddiw bi gën a jege suuf nee nañ mi ngi jege suuf quatre années lumière une année lumière égale neuf milliards de kilomètres yu teg quatre années quatre années lumière yi day nekk trente sept milliards de kilomètres mooy biddiw bi ñu gën a jege te kooku boo koy comparé yeneen biddiw ya dafa mel ne nga naan ak pes ak États-Unis am na yoo xam ne dem nañu ay cent mille milliards ci ay années loolee mbokk da ngay gis ni kawteef la boo xam ne suñu borom moo ñu ko won ci asamaanam yooyee loolu ngir won ñu la nga xam ne mooy kattanam ak xereñeem mu tasaar ci ay biddiw ca la def jantam ba ca la def weeram ya système yoo xam ne nii ay planètes yu dul jeex yoo xam ne nii doomu aadama yi lañ ci gis lu néew a néew la loolu mi ngi noonu ca la def la nga xam ne it mooy niir ya nga xam ne ñooy indi taw ya waaye nga wàcc ci kaw suuf li ci yàlla dëxëñ ci ay géej ay montagne ci ay dex ci ay façon bàyyima ci ay façon garab kenn mënu koo lim kenn mënu koo lim in tawdu ni'matallahi la tuhsuha loolu lépp yàlla ko def ngir doomu aadama suuf soosee wuute lool suuf yee ay joor la yee ay ban la yee ay yu yu yu yu neex ñor la yee ila axiri borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne ay kawtéef mi ngi ci loolu ñeel borom xel yu mat yi dafa am lu ñuy tuddee koo xam ne nii am na intelligence su loo ko jàngal mu gaaw ko xam gëstu def ay découverte loolu mooy ñi jàng tey nekk ay architecte nekk ay médecin ay lu mu mën a doon waaye mbokk la nga xamee ne mooy jëriñ doomu aadama bi mooy tey soo xoolee ci gannaaw xool asamaan ak suuf ba yéemu bu dee borom xel mu gàtti moom foofu la yem scientifique yi découvrir nañ Mars découvrir nañ Uranus découvrir nañ nangam nangam waaye fa la yem am maa yow jullit da ngay passé foofu da ngay xalaat kan moo def loolu gis ngeen kan mooy def loolu système bi nga xam ne am na la terre tourne système solaire bi mi ngi tourné nangam nangam scientifique bi moom ma nga yem ci le comment nii lay demee amma bu dee jurit day wax moom le pourquoi kan moo tax ba lii am nag noonu ñuy ulul albaab mooy borom xel yu mat yi yal na yàlla boole ñu ci borom bi it nee na noonu kawteef nekk dans l'espace mooy asamaan ak suuf noonu la nekkee dans le temps guddeeg bëccëg ni ko yàlla di wóotale te yàlla war ñu ne sunu suuf si may tourné naam tourné nañu ñun place bi ñu nekk war nañ gannaaw jant bi ñi ngi ci guddi téléphonel léegi Amérique ñu ne la ñoom ñi ngi jàkkaarloog jant bi téléphonel Japon ñu ne fajar mi ngi jot ci ñun fa passé nañ fajar sax loolee kawtifu yàlla di indi mu ñu indil la nga xamee ne nii mooy temps boobee temps boobu suuf si di tourné ci moom noonu lay tourné di wër jant bi moo ñu indil noor moo ñu indil nawet dañu indil cooroon dañu indil lolli muy saison yooyu nga xam ne day am lii lépp mbokk borom xel bu koy constaté moom balaa xool di yem ci mbir mi day xool ki nekk ci gannaaw loolu loolu tax jullit moom day yëg ne wa fi kullin lahu aaya tadullu ala annahu alwahid lépp lu mën a doon ci kaw asamaan dalay wan ne yàlla kenn la yàlla ku màgg la yàlla ku xereñe la yàlla borom yërmande la loo xool ci kaw suuf mi ngi lay jàngal yàlla ku màgg la borom kattan la mooy ki xereñe mooy borom yërmande ji mooy borom xikma bi loole la julit moom di bàyyi xel looloo tax ba suñu borom jalla wa ala ni mooy ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla fu ñu mën a toll na doon dañoo taxaw ña ngay tudd yàlla rawatina ci julli ya dañoo toog ña ngay tudd yàlla même buñ tëddee ña ngay tudd yàlla te mbokk yu neen ci bi alayhi salaam noonu la meloon kaana yazkuru allah ala kulli ahyaani suñu yaay Aysa nee na yonent bi gémmiñam daawul dagg ci turu yàlla te boo xoolee bu la jàngalee tamit askar yi nga xam ne moom la jàngal julit foo toll yaa ngi tudd yàlla yaa ngi jëm ci douche bi yaa ngi tudd yàlla génn nga douche yaa ngi tudd yàlla yaa ngi génn sa kër tudd yàlla yaa ngi dugg jàkk tudd yàlla yaa ngi yéeg waruwaay tudd yàlla lépp yaa ngi tudd sa sa borom jalla wa ala loolu tax mas na ànd ak ay ndaw ñu jóge ci benn jihaad bi ñëwee ñu seen benn tund jud aan ndaw ñu ne haza jud aan ana kuy jëkk rek ñu daq seen giléem yi daw biñ demee ba yonente bi ñoo dab leen kii naan kii raw kii naan kii raw mu ne sabaqal mufarridun mu ne ñii raw day mooy ñëy wéetal ñu ne ko xan mooy mufarridun yom yàlla yom yàlla yónni mu ne azakirun allaha kasiran wa zakirat ñi raw dëgg-dëgg mooy ñiy tudd yàlla lu bari ci ci góor ña di tudd yàlla lu bari ci jigéen ña ulaik aadda allahu lahu maghfiratan wa ajran azima ci suratul ahzab loolu nag mbokk julit nañ ci bàyyiwaat xel ci zikrullah islam dala jàngal fi nga yeewoo ba fi ngay tëddee zikrullah booy tëdd salal ayatul kursi qul wallahu ahad qul huwa falaq qul huwa nas bu na ñetti yoon subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 loolu mooy ba nga nekk di tëdd dama jëlale nag ba nga jógee taxaw moom wala di nekk ci leneen diit war a góorgóorlu ñu xam ne sunu mag ñi day am na lenn lu leen yàlla mayoon may bari woon nañ zikrullah ci lu ci bari lan moo nekkoon seen portable ñoom mooy seen kurus waxuma débat kurus sunna la bi daal waaye li may wax rek mooy seen kurus ñu daan yor fu toll ñu ngi zikrullah ñun nag yàlla nattoo nañu xéewal gu rëy danger bu rëy muy portable xéewal gu rëy rëy rëy bu la mën a jàngal xam-xam bu bari waaye danger bu mën a rëy bu la gàllankoor ci lu bari tey lu bëri ci doomu aadama yi portable dox na seen diggante lu bëri ci zikrullah da ngay toog xatta ci sapp bi ñi ngi xaar julli nit ñi ngi manipuler youtube bi di manipuler whatsapp bi di manipuler lu kenn xamul loolee mbokk musiba la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala nattoon nañu ko ku dee ci ñun war cee bàyyi xel bu baax a baax ci lan nga koy jëfandikoo ci lan nga koy ubbee ci loo koy toppee baril zikrullah heure boo xamee ñu ni jullit mi ngi def zikrullah suñu borom yàlla nee na lu ñuy wax mooy ña ngay tudd yàlla booleeg di fàttaliku yatafakkaruun di fàttaliku ci xalaat ni yàlla bind asamaan ak suuf comme ni ma la ko waxee sànq du ñu yem ci gisunu scientifique bi wala ko scientifique jàngal nga xam ne le pourquoi rek lay xool mais moom lu mu mën a doon mi ngi gis yàlla ci gannaaw loolu su ko defee dañ naan yàlla lii di bindoo ko ci neen subhanaka sell ñeel na la subhanaka yàlla yaa màgg subhanaka yàlla yaa xereñi subhanaka yàlla yaa bëri yërmande subhanaka yàlla yaay alghani subhanaka amoo ndend jàll wa ala subhanaka sell ñeel na la ay yàlla faqina azab annar yal nañ ñu musal ci mbëgalum sawara te mbokk yàlla mi bind asamaan bii taal jantam bii bu ne am naa sawara ñu war koo gëm jantam bii dong bu doon mooy sawara wala ñu war koo gëm ñaata la ëpp suñu suuf si kenn mënu la ko wax sunu borom yàlla bu doon jant rek mooy sawaraam ñu war koo gëm la ca nekk ci tàngaay ndax nit mën na koo xalaat su ko defee kon yàlla moom moo ñu ne wax ne jullit yi ñoom dañ naan yàlla musal ñu ci sawara yaa ngi dégg benn rabbana xoolal page bi nga tiim dañ ci fekk ñeenti rabbana te it yàlla daa bëgg jaam bi saxal ak njaamam ci kanamam amul lenn lu gën a neex yàlla jaam bi wane ko man sab jaam la jaamuma keneen ku dul yow loola tax rabbana rabbana wax na ko ñeenti yoon ba fàttali ko keroog ba ibrahima di yëkkati kaaba ga moog ismail nee nañ rabbana wajal naa muslimay ne nag rabbana mi ngi wabas fihim rasulan rabbana nu mu ko waxee ñetti ah ah wa arina manasikana ca mooy rabbana rabbana moo tax borom xam-xam yi sax dañ naan bokk na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu ñaan goo xam ne dañ caa dugal lu mat ñetti rabbana mi ngi noonu rabbana bu jëkk bi mooy yàlla bindoo li ci neen yàlla ñu musal ci sawara ñaareelu rabbana bi mooy yàlla day képp koo dugal sawara xamal ne toroxal nga ko ay julit xamal ne teddaange ak toroxtaange ci jaamu yàlla yu di feeñ àdduna ma ndax gaa yi yàlla toroxalul firawna kay ndax yàlla jox ko nguur goo xam ne néew néew na ko mu ko jox ci kaw suufa ah kay kon teddaa nga dëgg-dëgg ma nga àllaaxira toroxtaa nga dëgg-dëgg ma nga àllaaxira yàlla koo dugal sawara day toroxal nga ko ca tooñkat yi duñu am kenn ku leen dimbali képp koo xam ne la yàlla tere te la ci gën a mag muy bokkaale bokkaale nga ba nga daje ak sa boroom amul kenn ci jaami yàlla yi kuy ñëw di la mën a xet li ci loolu ñetteelu rabbana bi mooy ay rabbana dégg nañu aji woote di woote jëme ci ngëm ñu daal di gëm ay suñu boroom ay yow mbokkum jullit àdduna li fi nekk ci ay woote kenn xamul nu mu toll ñee ngay woote ci shirk ya ñee ngay woote ci bidaa ya ñee ngay woote ci sport ya ñee ngay woote ci politique ba ñee ngay woote ci lu nekk waaye ngallaawaay xamal ne yow julit woote di woote priorité des priorités ka nga war a jëkk wuyu mooy kan mooy kalay woo jëmale ci yàlla jalla waala dégg nañ aji woote bi jëme ci yàlla moom la borom bi di wax ci suratul hadid wa rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum yonent bi ngi woote ngir ngeen gëm yàlla te yonent it noonu moom lañ nekkoon mboole seen mooy la suñu mag ba oustaz Demba Diop doon wax yal na yàlla jéggal ko yërëm ko mu ne képp kuy wooteel yàlla dafa war a yor jukkoy alkaati alkaati day taxaw ci circulation bi naan gaa yi dem leen dem leen waaye du taxaw mukk na oto yi kaay leen sama kaw am déet bu ko defee moom alku na oto bu jaar ci kawam am problème am déet kon it naka noonu mbokk aji woote wooteel jëme ci yàlla malheureusement nag kañ la woote ba commencé yàqu ba ku nekk wootee jëme ci maamam ngir yëkkati sa daraje famille ngir yëkkati sa daraja ngir noot ñeneen ba mën leen a jëfandikoo wooteetuñ jëme na ci yàlla waaye mooy woote jëme ci ma may ak i kawteef ak i xuraafaat yoo xam ne nii kenn xamul di ko jagleel maam ya ñun day yàlla ban déggee loolu gëm nañu loolu ñeenteelu woote bi kon mooy yàlla yàlla nag ñu baal suñuy bakkaar mi ngi noonu wax fir lana mooy suturaal ñu ci te baal ñu ko faral ñu suñuy ñaawteef kaffir anna suyaatina bokk na ci xéewlu borom bi jàlla wa ala mboole mu jaamu yàlla yi ngay def day far say bakkaar diggante julleeg julli njàpp ma koor ak koor ajak nangam lépp day far bakkaar ya ñeenteelu rabbana ba mooy rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulik yàlla yal na ñu jox li ñu dig ci sa yonent yi te mooy aljanna te it bu ñu toroxal yawmal qiyaama bu ñu toroxal yawmal qiyaama yonent bi alayhi salaam da doon wax ki def bakkaar te waay na ko tuub fii toroxtaange àdduna moo gën a woyof toroxtaange àllaaxira xaritu yàlla ba Ibrahim wala tuxzini yawma yub'asun yàlla yàlla bu ma toroxal yawmal qiyaama yow day de wuute ak say dig na am mbokk yàlla du wuute képp kum dig ne bu ñëw mu teral la du la wuute amma nag la nga xam ne mooy ay tëkkoom moom bu ko neexee teggi ko looloo tax ba ab jullit suñu borom nee na kuy lekk alali jërim dana dugg sawara koo xam ne nii da ngaa nekk di lekk riba dana dugg sawara waaye nag ci yërmaande gi yàlla man ngaa ñëw yàlla teggi loolu tëkk yooyu mu teggi ko amma lam ni dig moom du ko teggi am na daal benn tëkk boo xam ne moom du ko teggeel kenn muy bokkaale inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha loo mën a indaale yowm alqiyama muy bakkaar su neexee yàlla mu mbugal la su neexee yàlla mu teggi ko sauf bokkaale bokkaale moom yàlla doola ko teggil ku koy yóbbaale sa war a nga jëm yal na yàlla musal ñu ci musal ñu ñami toroxal mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد barakallahu fikum suñu borom mu ne fastajaba lahum rabbuhum noon la wuyoo ñeel leen seen borom anni la udiu amala amilin minkum ne man day duma neenal mukk jëfi aji jëf ci yéen min zakarin aw unsa na doon góor la wala jigéen ba'dukum min ba'd lenn ca le ca yéen ma nga jóge ca la ca des fa lazina haajaru ña nga xam ne day dañoo gàddaay wa uxriju min diyaarihim ñu génn leen ci seen dëkkuwaay ya wa uzu fi sabili ñu lor leen ci saw yoon wa qaatalu wa qutilu ñu xeex ak noonu lislaam ya ba ñu rey leen ca la ukaffiranna anhum sayi'aatihim ñooñu day dana far ñeel leen seeni ñawteef wala udxilannahum jannat danaa leen dugalit ay àjjana yoo xam ne tajri min taxtiha al anhar dana daw ca suufam li di ay dex sawaaba min indillah loolee nekk ak fay gobawoo ca yàlla wallahu indahu xusnu sawa sawaab nekk na ca yàlla gën jaa rafet ci pay la yaxurannaka taqallubu alladina kafaru fi lbilad bu mu la wor mukk wëlbatikuk yéeféer yi ci biir dëkk yi mataaun qalil bànneex su ndaw la rek summa mawaahum jahannam gannaaw ba seen daluwaay fa ñuy mujje mooy sawara wa bisol mihaat aka bon lu ñuy laytaayoo mi ngi noonu mbokk suñu boroom gis nañ ne jaamam yi woo nañ ko ñeenti yoon ñaan ko mu jéggal leen mu jox leen aljanna musal leen ci sawara suñu borom mu ne mu wuyu leen seen borom seen borom lañ doon woode rabbana rabbana fastajaba lahum rabbuhum te loolu it mbokk mi ngi noonu amul kenn koy woo suñu borom jalla wa ala sellal woote googe lu dul borom bi dana la wuyu amma nag borom bi wuyu googu it da koo dugal ci charte mu ne leen man day du ma neenal jëfi aji jëf te mbokk woo sa boroom ci ay ñaan xamal ne mooy la gën a màgg ci loo xam ne julit war na ci góorgóorlu di ca taxaw yeneen ci bari sax mu ne addu'a huwa al ibada ñaan daanaka moo tënk jaamu yàlla kii ñaan yàlla xam ne ne yàlla am na xam ne ne yàlla ngi koy gis xam ne ne yàlla ngi koy dégg xam ne ne yàlla am na kàttan ci lim koy ñaan xam ne ne yàlla am na yërmaande jox ko lim koy ñaan kon kooku mi ngi noonu woon a boroomam borom bi nag mu ne man du ma neenal jëfi aji jëf loolu moo tax rek toog naan yàlla may ma ajjana musal ma ci sawara boo xëyee nekk te na la neex loolu war sa bopp la mbokk ajjana dañ koy liggéeyal sawara dañuy liggéey lañ cay musal moo tax suñu borom ni fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada koo xam ne bëgg na bis bu dajeeg boroomam mu jéggal ko yërëm ko nay def lu baax te bañ a bokkaale lii mbokk moom mooy charte bi ñaan gum mën a doon day ànd ak charte bari na nag lu bari ci yàq suñu diine dañ naan suñ diw ñaanoon na yàlla nangam ñaanoon na yàlla nangam ñu jàpp ne lam ñaan yëpp yàlla def na ko mi ngi noonu lam def ñaar bi lépp yàlla def na ko ba loo xam ne nii lu ma marqué la ndax dama ko déggul ci télé dégguma ko ci rajo benn mbooloo laa gisoon ñu nekk benn góor taxaw mu ne Sénégal ñaan yi fi sañ jiw ñaan yéefir yi sax àjjana lañ jëm gis ngeen ala kulli xaal mbokk loolu njuumte la jëf lay mooy dugal aljanna borom bi subhanahu wa taala mu ne du ma neenal jëf yi kuy jëf ci yéen na doon góor la na doon jigéen la te yéen mbokk nañu xam ne diine lislaam góor ak jigéen a ko bokk la nga xamee ni nii mooy wàllu jaamu yàlla góor ak jigéen a ci yem kepp góor bu jullee lañ koy fay loolu la ñuy fay jigéen su tuddee yàlla lañ koy fay naka noonu koor naka noonu aj naka noonu diine ji góor ak jigéen ñoo ci yem ñoo ca war a jëkk taxaw loolee kon ñi jàpp naan islam dafa delloo gannaaw jigéen xamuñ islam li mu wane rek mooy organisation àdduna dañ ne pour mu dox na góor jiite waaye firiwul mukk na góor a gën jigéen te jii masalan boo demoon dëkk bu mu mën a doon Chine li muy rëy rëy du gaa yi benn njiit la am ah Amérique du benn njiit la am ndax njiit ba moo gën ña fa nekk société bu mu mën a doon day am kenn ku ko jiite waaw naka noonu famille bi du am ku ko jiite loolu moo tax ba dañ ne échec bi am en Occident mooy lu ne am na ku ko jiite sauf la famille direction yi am na jiite service yi am na ñu jiite lépp am na ko jiite famille bi nañu ne kenn jiitewul lii la yem moo tax it musiba bu dul jeex rek ngi noonu su ko defee kon loolu rek la waaye aka bëri ay couple yoo xam ne ndaw su moo gën ko góor ka aka bëri couple yoo xam ne góor gaa gën ko jigéen ka ndax gëñal bañ gëñee ne ajuwul ci góor jigéen mi nga ajoo ci ngëm yàlla ak jëf lu baax mi nga noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne yéen góor ñi ci jigéen ñi ngeen jóge yéen jigéen ñi ci góor ñi ngeen jóge mi ngi noonu ña nga xamee ne nag dañoo gàddaay muy sahabatul kiram te mooy ñi gën a màgg ay jëf gàddaay ca yàlla tax ñii ñu bund xatal leen génne leen seen kër yi ngir diine dañ nekk xatal leen lor leen teewul ñu dem takku ànd ak yonente bi jihad fi sabilillah bañ a rey ci ñoom lu baree bari suñu borom mu ne danaa leen baal seeni bakkaar mu gaa yi xanaa ñii ñoo waroon a bakku sëriñ suñuy bàkke fii cër bu nañu jox leen ko ca yàlla xanaa ñu waroon a bakku am cër ci yàlla mooy sahabatul kiram waaye xoolal jaami yàlla bi xam yàlla keroog ba nga gënee defal yàlla keroog nga gën a tiit keroog nga gën a suufe ci kanamu borom bi jihaat nañu gadday nañu lor nañu leen borom mu ne danaa leen baal seeni bakkaar gis ngeen naa leen baal seeni bakkaar danaa leen sàbbalit ajjana joo xam ni dana daw ca la nga xam ni muy suufam ay dex te loolu it mbokk julit bàyyil xel loolu yow rawati na yow ndawul julit nga la waay ndawul julit heure boo jógee di jaay sa bakkan na fekk la tax nga koy def mooy taxawal kàddu gi yàlla ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax la nga xam ne moom mooy jihaad xeex ngir taxaw kàddu yàlla loolu rek a tax julit war a jóg di jaay bakkanam delloo ngërëmal yàlla loolu rek a tax julit di jaay bakkanam ba tax suñu borom mu ne wa in taifataani min almuminina iqtatalu faslihu baynahuma bu ñaari kuréel dee julit dee xeex lu leen mën a boole politique syndicat lu ñoo xam lu leen mën a boole jóg leen yéwénal ci seen diggante bu kenn ci ñoom beewee ca ka ca des fa qaatilu lati tabi xatta tafia ila ila amri allah mbokk nañu xam ne ki ñuy woo ci xeex ki ñuy woo ci jihaad daf ñu woon nañ jóg taxawal sharia yàlla taxawal amrullah mais pas mbiri àdduna taxawal amrullah boobu it mbokk niñ koy waxe daiman jihad fi sabilillah farata la ci farata yi la waaye dafay am ay charte ni aj makka ami ndax tey ku jógoon dem aj makka da nga da nga da nga am aj makka la wallahi lu tax mooy aj makka gu jotugul jihad fi sabilillah ka kay woote mooy amirul muminin di leen ñu am njiit bu leen jiite mu di sooki borom xam-xamam ñu xam ne yéeféer yii kat nekkuñu ci njub ku ci dee sawara nga jëm ñu dem raayi leen biir kaay leen ngeen dugg ci lislaam ñu nekk ay doomi ndey su dee ne nanguwuñu ñu ne kon bàyyi leen ñu jiite dëkk bi ku bëgg dugg ci lislaam dugg ci ñu aar leen ngeen di joxe impôt suñ ne nag ñaar yooyu benn du ci am te la ñuy doog a xeex ak ñoom waaye bu dul loolee mbokk képp ku la woo ci ay xeex bu mu mën a doon na naan boo ci dee da ngaa shahid la ngay wax xamulu ko loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax yéen ndaw ñi su ko defee borom boobu loolu la wax fii sabili uzu fii sabili qaatulu wa qutilu mu ne ñii danaa far seeni ñaawteef danaa leen dugal ajjana joo xam ne dex yaa nga fay daw ajjanaa ngi noonu mbokk luy ajjana yonente bi da koo tënk ci loo xam ne doy na nee na maa la aynun raat yooyu mi nga xam ne gis nga Hollywood gis nga la xew ca Paris gis nga la xew ci façon luxe yi am dans le monde suñu borom mu ne àjjana kenn gisagul lu mel na moom wala usnun samiat kenn musul dégg ba dégg lu mel ne àjjana wa ma xatara ala qalbi bachar kenn mënul imaginer ba dem ba xam àjjana nu mel àjjana dem gis rek la yàlla na yàlla booloo ñu ci li nga noonu danaa leen dugal àjjana yoo xam ne def yaa ngay daw ci suuf loolee nekk fay bu jóge ci yàlla ci jëf ja nga xam ne dañ ko doon jëf gannaaw bañ naa ne yàlla borom bi nag ne xam leen ni nekk na ca yàlla la gën jaa rafet la gën jaa baax ci pay te mooy sa dund gàtt gi nga xam ne bu amee téeméeri at bari na même bu doon da nga koo jagleel rukk ak sujud téeméeri at la suñu borom dana lu dugal àjjana joo xam ne du mille ans du un million d'années mais c'est l'infini day dem abadan abadan abadan kon mbokk yàlla ay payam rafet na yàlla nañu boole ñoom yi pay alaxira naam jàng nañu kon mu ne borom bi it jàll wa ala mu ne yow julit ngalawaay bu mu la wor yéeféer yi nga xam ne am nañ ay moy di wëndilu ci kaw suuf ci seen tourisme bi nekk ci kaw suuf ci seen caaxaan yi ngalawaay loolu bu mu la wor yow julit ba tax nga bëgg a mel ne ñoom xamal ne loolu ñu nekkee xéewal gu ndaw la mataun qalil naam xéewal gu ndaw la ci temps moo gaa yi ab yéeféer tey ndax bu doon nos bam téeméeri at dana mën a noosati la wallahi kon ci temps lu néew la par rapport ak alaxira ba koy xaar gannaaw ba it lu néew la ca la nga xamee ni ni moom la ñàkk yeneen ci bi alei salatu wasalaam nee na xéewal yi nekk ci àdduna suñ ko doon méngalee ak aljanna mooy yow da ngaa demoon géej jël sa baaraam sampati ndox mi li taq sa baaraam mooy méngoo xéewalu àjjana géej ga mooy aljanna ma li taq sa baaraam mooy méngoo xéewalu àdduna géej ga nag mooy àjjana ndax gaa yi lii c'est comparable la wallahi kon mataun qalil la loolu moo tax ba lu bari ci nit ñi dañuy def ay njuumte jël sa doom jàngaloo ko diine jàngaloo ko dara jëkkanteeg moom teel koo dugal avant 17 ans 18 ans mu dagg bag nga sànni nag Canada sànni nag Amérique sànni la nga xam ne mooy feneen ngiree mu teel a réussir lu tax mooy bëgg nga ni ni ni yéefi di réussir mu réussir ko perte nga àdduna perte nga àllaxira loolu bu mu la wor su ko defee julit moom dana dox ci kaw suuf lan moo ko yëkkati jàngi xam-xam lu ko yëkkati woote ci yoonu yàlla lu ko yëkkati fagg wërsëg bu dagan wu mu teddee moog ay mbokk julitam mais du wëndeelu mukk ci kaw suuf di yàq wala wëndeel ci kaw suuf di noos borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñooñu di yéeféer yi bànneex bu ñu mën a bànneexu la cay mujje moom mooy sawara mi ngi noonu ca amul benn bànneex boo xam ne nii doomu aadama bi jar na muy dugg sawara rasul sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla dana jël yéeféer yi ki ëppoon bànneex ci ñoom mën nam firaw na lay doon mën nam qaaruun mën nam ku leen gënoon a bànneexu malaaka yi nu ko cëpp biir sawara génne ko na ko waaw sëñ bi yow bala yàlla bindee ba tey ndax mas ngaa gis benn bànneex mu ne déedéet ba ma yàlla bindee ba tey mosuma gis bànneex ci benn cëpp bi ñu ko cëppeel sa wara noonu lay wax contraire ba daañu xool ci jullit ñi ki gënoon a bëri ay coono mën nam gaana woon na te joon nañ ko prison amul jabar amul doom ci fitne la dund ku talof talof yi dul jeex malaaka yi dugal ko àjjana génn ko na ko waaw yow ndax bala yàlla bindee ba tey mas ngaa gis coono suñ tam ne man déedéet man kay bu ma yàlla bindee ba tey mosuma xam coono kon mbokk lii lu gàttale lee mu jeex la ñuy xaar moo dul jeex yàlla nañu yàlla boole ñu muñ ba yegg ci biir aljanna
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا راجعوا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون jazakallahu khayra suñu borom jalla waala mu ni lakin allazina taqaw rabbahum waaye ña nga xam ne dañoo ragal seen borom day lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar dana leen ñeel àjjana yoo xam ne dana daw ca suufam ay dex xaalidina fiha ñu sax fa ba faw nuzulan min indillah loolu day ak wàccuwaay la muy nganale gu bawoo ca yàlla wa ma inda allahi xayrun lil abraar la ne ca yàlla nag moo gën ñeel ñu baax ña wa inna min ahli alkitab doonte ne am na ca ña jotoon téere ya la man yuminu billah ñoo xam ne day gëm nañu yàlla wa ma unzila ilaykum ak la ñu wàcce jëme ci yéen wa ma unzila ilayhim ak la ñu wàcce woon jëme ca ñoom xaashiina lillah dañuy nekk di toroxlu ñeel yàlla laa yashtaruuna bi ayati llahi samanan qalila duñ jënd mukk kaawtee fi yàlla yi lii di njëggu néew ulaika lahum ajruhum inda rabbihim ñooñu day dana leen ñeel seen fay ci seen boroom inna allaha sari'ul xisaab yàlla day ku gaaw la ci ni muy réglé ay jaamam yaa ayuha allazina amanu sbiru ay yéen dulit ñi muñu leen wasaabiru jëkkante leen ci muñ waraabitu fagaru leen wattaqullah e way ragal leen yàlla laallakum tuflixuun ngiree ngeen texe mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ni ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi bànneex buñ mën a am ci kaw suuf sawara mooy seen wàccuwaay amma ñi ragaloon yàlla yàlla waxul ñi sant nangam wala ñu juddoo nangam wala ñi seen maam nekk nangam waaye laakin lazina taqaw rabbahum chinois lañu wolof lañu portugais lañu dañoo weex dañoo ñuul dañ doon dund ak yonent bi dañoo dund fi axiru zaman lay am solo mooy taqaw rabbahum ragal nañ seen boroom def ay ndigalam bàyyi ay tereem bañ koo bokkaale mu ne ñooñ day àjjana mi ngi leen di xaar àjjana joo xam ne dexi meew yaa nga ne dexi sàngara yaa nga ne dexi lem yaa nga ne dexi ndox yaa nga ne bu bokkul ak lemu àdduna sangara àdduna meewu àdduna borom boobu neen dañu fay sax ba faw mu nekk nganale gu leen yàlla di nganale mbokk àjjana bus bu ne ngan la bus bu ne ngan la lu tax mooy bus bu nekk ñu jox la loo xam ne mosoo ko gis kullama ruziqu minha min samarati rizqan qaalu hadha ma ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha bés bu nekk la leen yàlla di di di jox ci xéewal bokkul gi lañ leen joxoon démb abadan abadan abadan yàlla bu mu ñu ëmb foofu borom boobu nee na nuzulan min indillah mu ne nag la ne ci yàlla day moo gën ñeel ñu baax al abraar al barr mooy ki baax ki nga xam ni aw yiw dafa nekk ci moom wéetal na yàlla lu baax rek lay def sori lu bon la ne ci yàlla day loolu moo gën ci ñoom adduna même buñ ci amee xéewal it du dara par rapport la leen di xaar ci yàlla borom bi nag ni ahlul kitaab yi am na ci ñoo xam ne gëm nañ yàlla gëm li ñu wàcc ci alxuraan toroxlul yàlla loolu naam bari woon na lool rawatina ci chrétiens yi tombi woon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ba suñ jamonoy tey ji mu néew lool ca la nga xam ne muy yahud yu bon ya daanaka ñu si gëmul yonente bat ñu sax fukk yaa ngi dégg waaye amoon na ci lu mel ne abdullah ibnu salaam kaabul ahbar ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ala kulli xaal suñu borom nee na ñoom day ñi ngi toroxlul yàlla ba aaya yàlla yi duñu ko jëlee njëggu néew nga la waay julit réussir ci politique bu mu tax nga jënd aaya yàlla yi njëggu néew réussir ci syndicalisme bu mu tax nga jënd aaya yàlla yi njëggu néew am alalu àdduna bu mu tax nga jënd aaya yàlla yi njëggu néew ba xam ne lii lu xaraam la nga ne na nga ko def ngir réussir lii ay bidaa la waaye naa ci dugg pour réussir lii shirk la naa ci dugg pour réussir jalgati aaya borom bi loolee mbokk da ngay gis ni loolu njëggu néew la suñu borom nee na njëggu néew la jàng nañ ko sànq mata u dunia qalil bu doonte ne boo jalgatee li yàlla araamal da ngay nekk président de tout le monde yaa ngi dégg yaa moom Amérique ak Russie ak lépp yaa moom jaru ko mbokk julit ndax lee mu jeex borom bi nee na mata un qalil lu néew la suñ borom nag subhanahu wa taala mu ne ñooñu bokkoon ci ahlul kitaab day te ba ñu yëgee diini lislaam ñëw na ñu bàyyi seen la ñu nekkoon ñëw topp dugg ci biir lislaam gëm alquran nañ gëme woon injil gën ñokkoon wala tawraat suñu borom nee na seen pay ma nga leen di xaar ci alaxira te yàlla day ko gaaw loolu muy réglé ay jaamam mbokk julit yowm alqiyama dana durer cinquante mille ans ci xaar ga ñuy xaar yàlla yàlla dana ko woyefal ci julit ñi ba mel ni diggante tisbaar ak takkusaan waaye nañu xam ne yàlla buy atte ay jaamam ci genn wàll bi sa la leen di atte mi ngi noonu ashabul jannati xayrun mustaqaran wa ahsanu maqila heure bi ñuy sees fekk na yàlla atte ay jaamam ndax suñu borom dara du koy teel ci dara atte bi muy atte cent milliards ya fay nar a daje yàlla xam ak atte woon benn jaamam la yéemale sariul xisaab borom boobu nag mu ne ay yéen julit ñi maa ngi leen di dénk ngeen muñ mbokk muñ mooy góorgóorlu ba xam ndigalu yàlla yi xeex ak sa bakkan ba def ko mbokk bala ngaa def ndigalu yàlla da ngay xeex ak sa bakkan de cinq heures du matin nga dégg gis nañ ni muy sedde ak mbaj yi ni muy neexe nga dégg bilal ci ab noddu nga fëkk sa mbaj mbokk loolu da ngay xeex ak sa bakkan de weeru koor léegi-léeg yaa ngi ànd ak sa mar sa xiif da ngay xeex ak sa bakkan soxna yi taaru yi woola ci jaaloo da ngay xeex ak sa bakkan gannaaw ba it xeex sa bakkan def ndigal yi xeex sa bakkan bàyyi tere yi xeex ak sa bakkan muñ dogalu yàlla yi ba natt bu yàlla teg ci yow ñàkkoo feebaroo prison jaaxlu nu mën a doon sa làmmiñ yu dara du ci génn lu dul sant sa borom mi ngi noonu gannaaw bi rabitu mooy saabiru mooy saabiru noonu lislaam yi na ngeen muñ ci xeex bi ñuy xeex ak yéen xeex boobu nga xam ne du jeex bu mukk rawatina jamono sahaaba yi daan jihaad da ngay gis ni musuñu xeex ak seeni noon lu dul noon yi ëpp nañ leen ñetti yoon waaye da ngay gis ne dañ daan muñ ànd ak ñoom ci xeex boobee ba seen yéefére da woon leen gannaaw saabiru mi ngi noonu gannaaw bi borom bi mun a rabitu e yéen jullit ñi fagaru leen mbokkoo ak ribaat mooy ñi fexe ba am ndaw ñoo xam ne ñoo aar l'islam ba kenn bett këru l'islam loolu ci au niveau pays waaye ci képp kenn ci ñun borom bi na rabitu fexe leen ba xam ne yaa ngeeg noonu nafiq yi noonu yéefér yi noonu cheytaan noonu sa bakkan fexe leen sagaru ba seeni noonu duñ leen daaneel rawatina ñu ñuy dund suñ jamono tey galawaay xam leen ne yéeféri tubaab yi am na lu ñuy décrété mooy li ñuy tuddee nouvel ordre mondial li ñuy décrété mooy la mondialisation adduna dafa war a dox ci benn doxalin doxalin boobu ñoo koy tëral bàyyi leen góor ak góor sëy num leen neexle bàyyi leen jigéen ak jigéen sëy num leen neexe xale bi bu ko kenn imposé diine diine bu ko neex nañ ko bàyyi ila axiri loolu nag mbokk mbir la yoo xam ne ni benn guerre la boo xam ne ndax ay ay ay char de combat ñoo ko jite ak avion na am am na ci Syrie am na Afghanistan am na feneen waaye déedéet guerre ba gën a màgg mooy guerre culturelle ba nga xam ne nii ñu ngi koy jaarale ci internet bi mooy jaar ci seen portable yi njaboot yi jaar ci ordinateur yi jaar ca la nga xam ne nii mbokk doo ko gis fekk la muy yàq moo gën a garaaw la bomb ya di yàq rabitu rabitu mun ta nekk lu dul jàng diine yàlla ji jàngal ko njaboot gi saytu njaboot gi di xool seen comportement di leen yee loolee bañ a bañ a dugg ci fiiru yee fiir yi gannaaw bi nag borom mu ne wattaqullah baa mu waat la nga xam ne mooy ragal leen yàlla su ngeen bëgg a texe mbokk texe nekkul ci alal nekkul ci fal nekkul ci siiw texe mooy nga ragal sa boroom ba boo dee mu teral la mbokk lii mooy jeexitulu sa ali imran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yawm alqiyama dana ànd ak suratul baqara ñu jiite alquran yàlla buy atte ab jaamam ñu taxaw di ko tinu di ko ñaanal yàlla ba yàlla jéggal ko tabbal ko aljanna yal na yàlla boole ñu ca loolu mbokk mi ngi noonu di ñaan yàlla defal ñu tawfiq may ñu afiye fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli haal ndax julit dana ci mérité wala mu jox ci alalam loolu ay mbir la yoo xam ne li ñu ci gënaloon bañ ciy wax ci mbooloo parce que da ngay wax xëy na ñii daan la dégg ñii duñ la dégg li may wax daal ci général moo di ne jullit heure boo xamee ne ni mi ngi laaj nguur la nekk jubluwaayam mooy taxawal kaddu yàlla ci kaw suuf suñu borom mu ne allazina in makkannahum fil ard aqamu salat wa atu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ci lii la jullit war a woote pour taxawal kaddu yàlla ci kaw suuf lii moo tax ba la ma ca jàpp man mooy loolu ku mel ni cheikh nasruddin albani nga xam ne bokk na ci siècle bi ñu ñu jàpp ne yàlla bokk na ñum ko may ci xam-xam bokk na lu mu doon wax ndaw ñi bari siyaasati l an adamu siyaasa sama politique mooy man duma politique loolu dana sama politique man mooy duma politique loolu mooy gisinam boo xam ne ni man moom ci ci boobu laa far ñe gis leneen nit mën nañ gis leneen mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw xam naa bala may fàtte rek am na lu ma waroon jëkk a jiite mooy suñu borom yàlla xam nañ ne suuf biñ doon wax sànq yëngal na ko ci indonésie moo ko moom de moo ko man am ah bal bal leen ma waaw yore na ko ci entre turquie ak syrie mooy borom suuf yéen xale yi jàng gis ngeen plaque yi mu ci def ni suuf di tourner plaque yooyu buñ dajee pression bay am ba tax tremblement yi di am lu mel noonu moo amoon Indonésie ba yëkkati géej gi trois cent mille morts tey bi may mujj dégg ñu ngi ci onze mille et quelques morts te diggante Turquie ak Syrie loolu mbokk ñu ngi leen di ñaanal yeneen bi alei salaam bokk na lu ñu doon bégale ki dee ci tremblement de terre dañ koy boole ci shuhada yi suñuy mbokk jullit yi seet dee yëpp yal na yàlla boole leen ci shuhada yi blessé yi ci nekk yëpp yal na yàlla saafara leen ña ci ñàkk seeni alal yal na yàlla delloo leen la gën ca loolee loolee mbokk mi ngi noonu kon incha allah waaw bisimilah waaw waaw waaw yonent bi alayhi salaam dañ ne bu ma saan jóg ay ci ci ay nelawam bokk na askar yu bari yum daan def bokkoon na ca loolee nga xam ne nii mooy jàng aaya yooyu nga xam ne da ko doon jàng loolee kon ki nga xam ne yeewu na ci lalam mën na jàng aaya yooyu ba am na riwaay wax sax da daan génn xool asamaan su xoolee asamaan jàng la nga xam ne nii moom mooy aaya yooyu donte ne dëkkuwaayu ndakaaru léeg-léeg dana fa xaw a jafe waaye loolu daal mi ngi noonu ala kulli xaal daana ko jàng avant muy taxaw la nga xam ne mooy ay naafilaam waaw xam na mbokk yi bi laaj day wax ne dafa dégg ko ne imam bu waxee wala daalin mboolem wur ñoo ànd wax amin ndax loolu da koy perturbe wala jaaduwul ala kulli xaal mbokk loolu mu wax maa ngi koy doog a dégg li ma xam daal yonente bi alei salaam dane ida qaala al imam wala daalin fa qulu amin te loolu ngeen xama naam imam wax na wala daalin nit ñi dañu ànd wax amin maanaam du ñu bàyyi ne ma sàmm wax amin ma dem ba doog wax amin ma doog wax amin du mu imam waxee wala daalin ñëppee àndoon wax amin loolee ñu bàyyi ci xel bu baax waaw naam donc kii waa kii ah waaw waaw loolu moom benn benn benn benn nattu la boo xam ne nii mooy dal nañu daanaka mi ngi yàggu fi te ki nga fi dugaloon téere yëm jaaroon dëgg fi muy Cheikh Nasr Albani ci sifatu salaat ba mu fi ñëwee la ko ñu bari commencé def mooy bi imam waxee wala daalin ñu ne teg parce que ñoom li ñu li ñu jàpp mooy imam dafa war a wax wala daalin ba wax amin ñuy doog a wax amin moo tax da ngay gis tey imam mën na wax wala daalin mbooloo mi ne amin beneen ci amin doog a wax fële amin waaye mbokk Cheikh Nasruddin Albani boobu nga xam ne moo bind na loolu sifatu salaat sifatu salaat yi mujj génn yépp dabantal na ci loolu dabantal na ci loolu xam ne ne lay sawaab mooy mbooloo mi ànd ak imam wax amin loolu la mujj dabantal ci loolu loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ngeen jéggal ñu rek dafa xaw a guddi am na ñu ne bi fu sori am na kii day wax ne dafa gis imam yu bëri yu nekk ci Arabie Saoudite ñoom seen sujur yëpp qabla salaam la naam lu bëri ci ñoom ci ni ñuy tënkoo ci mazhab Malik ñoom dañuy ci mazhab Ahmad ñoom dañuy jàpp ne lu sujud qabla salaam lay nekk am na ñeneen ñoo xam ne ni dañoo jàpp sujud yëpp baada salaam lay nekk loolee ixtilaaf la ci borom xam-xam yi am doonte ne la ci gën a digg doomu di mazhab Malik ñun loolu lañ gën a doyloo mooy boo wàññee julli gi sujuutul qabla salaam soo yokkee julli gi sujuutul baada salaam bu ñu dajalee xadise loolu la wone waaye it ñoo xam ne heure booy julli ci gannaaw imam njuumte am na ci julli gi imam réparé na ko ba pare sujud na qabla salaam àndal ak moom julli ga baax na sujud na baada salaam àndal ak moom julli ga baax na yal na yàlla nangul ñu zahir na batinan mille francs yi ngeen di barkeloo par mois it ngeen bañ koo fàttee xale yi daañ koo jël yal na yàlla nangul ñu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain